maa ngi tudd professeur Pape Saliou Mbaye maa ngi yëngatu ci feebar yi nga xam ñooy laal butit mbaax rek res ak kurandëm kurandëm dañuy wax pancréas moom ñu ko xam bariwuñ en fait pour xam ko benn boucher moom ko waxoon parce que ñëpp pancréas la ñuy wax ma dem ci boucher nga xam ñoom tous les jours dañuy rey ma ni ko waaw pancréas ñu ni ñu koy waxee moom wax ni kurandëm lañ koy wooye donc kurandëm wala ma boucher bi waxoon donc euh, médecin ci feebaru res ak butit ak mbaq ak bëli yooyu lañuy faj donc loolu boo gisee comme ni ma ko waxee sànq àddina bi fépp domaine boo mënti gis rek boo mënti jël rek dafay évoluer et puis évolution bi dafa gaaw moo tax médecine aussi dafay évoluer donc pour que ñëpp xam évolution bi fu mu yem ak li nga mën a xam tey parce que ñu mën ñu mënuñu wax ni xam-xam ba ma génnoon ba ma nekk université ba ma defee sama thèse ba pare laay toogee ba léegi di ko faje moom mënut a am parce que lépp dafay avancer dafay progresser maanaam mooy lii tax ñu xam ñu ñu trouver feebar bi ñu ko waral am na feebar yu xam yu bari yoo xam ni il y a vingt ans xamuñoon lañ moo ko waral tey xam nañ li ko waral feebar bi aussi ni ngay def ba xam ni feebar bi lii la jëmtukaay yi ngay jëfandikoo pour xam ko yooyu yëpp dafa dafa évoluer dafa dafa jëm kanam jëmtukaay yi ñuy utiliser aussi pour faj yooyu yëpp dafa évoluer donc loolu moo tax domaine médical dans le domaine la médecine il faut que régulièrement ñuy def ay corps congrès yoo xam ni dañuy xamal docteurs yi nga xam ñoo ne ci spécialité bi xam-xam yi fu mu toll xamal ko suñu xare ci médecin général si nga xam ni bépp feebar képp ku feebar ci ñoom ngay jëkka a jaar boo dee jaar ci ñoom nag il faut que aussi ñoom ñu xam feebar yi nan la mel nan lañ koy diagnostiqué ak nan lañ koy faje donc suñu suñu mbootaay gi ñuy wax société sénégalaise de gastroentérologie loolu mooy butam objectif maanaam yokk xam-xamu ñi nga xam ne ñoo ci nekk yokk xam-xam yeneen docteurs yi nga xam dañuy liggéey ak ñoom parce que feebar nit ko bu feebaree ci ñoom lay jëkk a jaar boo amee feebaru boo xam ne ci feebaru xol la il faut que nga xam ni lii feebaru xol la fekkee war na dem ci cardiologue bi yónnee ko fekkee lii feebaru biir la nga war a xam lii feebaru biir la nii lañ koy diagnostiqué nii lañ koy fajee su fekkee mun na yem ci yow nga diagnostiqué ko faj ko fekkee yaakaar na ne nag spécialiste war na ci intervenir nga yónnee ko ko lépp pour nga mën ko xam nag il faut ngay am ay ñu lay ni ñu koy xeeti ñu lay tàngat ñu lay ngay nafar ñu lay wax feebar bi léegi xam-xam bi fii la toll diagnostic bi fii la toll paj mi fii la toll loolu daal mooy suñu objectif société sénégal de gastroentérologie càmbar ñi nga xam ne ñoo ci nekk spécialiste càmbar yeneen docteurs yi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyandool pour que malade yi seen diagnostic di gaaw seen paj di gaaw et di jaar yoon di jaar yoon yoon yi mooy fan fi médecine toll paj mi dafa mën a toll pour que malade yi di mën a am ay ngàntu yoo xam ni dafa leen di gaañ tey wala ëllëg ba doot ñu mën a liggéey wala ñuy ñàkk seen bakkan daal laa moom ci lu may dolli ci professeur bi wax sànq